ñuy dalal tey euh, sëñ bi Samba Djalimpa Badji yor euh, communication CORED muy conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie ñu ngi lay nuyu di la dalal. Mhm. ñuy amal waxtaan bi jamono ji nga xam ne média yi ñu ngi leen a tege euh, ci euh, pré campagne maanaam mu am lu leen tënk jamono ji euh, du ñàkk fileek ñaari semaine ñu dugg ci campagne électorale li ni mel daanaka léeg mu jeex tey ci jàngat boo doon xayma ndax foog nga ne sey naataango def nañu respecté nañu li war. waaw sunu sukkandikoo ci lii ñu seetlu nii. Euh, ci euh, jamono ji ñu nekk era euh, yëkkatiwul baat di nga ñi liggéey journaliste yi ci jamono ji ñu nekk ñu koy wooye période de de pré campagne mën nañu jàpp ne xëj na journaliste yi ñu li ci ëpp ñu ngi topp ci li wax donte yenn saa ñu am lu ñu gis sunu xel xaw cee ñaaw jàpp ni xëj na am na ci ñoo xamante ne dañu jéem a ut Euh, porox ndollu ñu jéem a euh, xaw a sàcc tuuti euh, daal di def loo xamante ne yoon nangu ko waaye nag bu ñu seetloo dans l'ensemble ñu jàpp jàpp naa daal yenn kaay yi ci bëri yi ci bëri ak tas yi ci bëri dafa am nag loo xamante ne man ci sama wàllu bopp daal sama xel jàllu ci euh, wala sama xalaat mooy ci euh, loi boobu ñuy wax euh, article L soixante et un bu code électoral bi wax ci wàllum pré campagne bi mm-hmm. jàpp naa ni dafa nekk loi boo xamante ne méngewul ak jamono jamono ji tey fu ñu toll nii mm-hmm. mënuñoo ne média yi ñu bàyyi di wane lépp lu dem ci wàllu politique ci période pré campagne mm-hmm. te boo gëstoo dem ci internet bi réseaux sociaux yi Facebook Twitter euh, YouTube ak yi ni nga gis fa lu lu jëm ci wàllu ci wàllu campagne électorale wala ci wàllu politique mm-hmm. kon euh, dama jàpp ni loi boobu daal dañ ko fi war a tekki ndax amatul benn njëriñ ndax luñ ci doon bay euh, bu fekkee ci ay années quatre-vingt-dix yooyu mënoon nekk waaye léegi luñ ci bañ yépp mu ngi continuer di am ndax dinañu Euh, nekk ci réseaux sociaux yi di def lu lu jëm ci propagande politique kon loi boobu man amul amatul benn njëriñ. ñu wax ci euh, beneen mbir tey euh, dañuy jàpp ne yéen ñu ngeen am tribunal des pairs wala sax ñu daan dégg ñu naan correct tribunal des pairs tey ndax correct am na taxawaay wala dañ day def léeg-léeg comme am na yenn média yi nga xam ne publique la ñëpp a ko bokk tey bëri na li liñ leen di ŋaññi ne day am par parloo ci traitement information bi. ndax cas yooyu euh, CORED daf ci intervenir. waaw euh, moo njëkk a leeral benn mbir mooy CORED euh, du CORED ci boppam mooy tribunal de pairs waaye CORED dafa am ci biir CORED la tribunal des pairs. nekk te tribunal des pairs moom day doxe boppam ndax du bureau CORED moo koy wax defal li defal le mhm. te leneen li li leneen li ñu mën lu ma bëgg leeral mooy CORED maanaam tribunal des pairs luñ ko fi teg maanaam bu amee benn doomu aadama boo xamante ne dafa dafa jàpp ni dafa am journaliste bu ko tooñ ci lu mu bind mun na euh, saisir maanaam porter plainte ci CORED ndax CORED jëm gën ci euh, mu taxaw ci euh, CORED aussi am na pouvoir d'autosaisine maanaam bu gisee loo xamante ne dafa ñaaw mën na woo journaliste bi déglu ko ma loolu mooy indi beneen leeral bi mooy liggéey liggante liggéey CORED ak liggéey Euh, CNRA. Euh, euh, CORED moom journaliste bi. Mhm. ki bind wala ki wone wala ki ki def reportage télé wala rajo moom lay moom la sekkal moom lay waxal directement mhm. maanaam bu jalgatee li nga xamante ne mooy. éthique ak déontologie CORED day wax ak moom woo ko déglu ko euh, te bu fekkee euh, dafa euh, laaj ñu bu jaree ñu teg ko daan ñu teg ko daan bu jaree ñu yedd ko ñu yedd ko loolu mooy liggéey CORED. CNRA mhm. nag CNRA moom du wax ak journaliste bi moom ci ci ci ci ci kër yéene kaay bi ci direct directement lay waxal média bi lay waxal. Mhm. Euh, donc du du loolu mooy mooy euh, différence bu mag bi ci ci liggéey bi ñuy bi bi ñuy def ñun ñun waa euh, CORED ak liggéey bu CNRA di def. Mhm. ngeen di dox ci éthique ak déontologie tey jii ñu gis ne tamit ci média public yi ba tey. Euh, ña koy jiite ñu bëri euh, dañuy bokk ci benn parti politique rawatina mouvance bi mais tey tamit taxawaayu CORED ci mbir moomu. waaw ci mbir moomu euh, CORED taxawaayam xëj na leer na te fësal nañ ko ci ay jëmmi jamono. Mm. wax lan moo ci suñu xalaat waaye ñun xalaat rek lañ ci mën ndax li jëm ci tabb nit bu nekk directeur général RTS wala APS wala. Euh, le soleil mhm. euh, du cëru correct euh, xëy na sax CNRA mën na ci àddu te it tamit CNRA du cëram ndax yoon moom may njiitu réew mi mu daal di fal directement ñi fay toog mu daal di tàbb directement ñi fay toog mhm. looloo tax ñun waa correct ñu woote ñu ñaan ñu ni xëj na jot na léegi ñu toog ñu ñi liggéey ci wàllu média ak euh, waa nguur gi ak euh, syndicat yi nekk ci média bi ñu xalaat naka la ñuy fexe ba ñiy jiite média yooyu euh, muy RTS Soleil ak APS ñu xool beneen Euh, palin bu ñu leen di fal pour fu ñuy toog ñu xool ci anam yu gën a leer yoo xamante ne du président rek mooy toog ci bureau am euh, woo ko neex ne def naa la directeur général euh, Soleil wala RTS wala APS waaye loolu day nekk day laaj ñu changer loi bi mm-hmm. moo tax mu laaj waxtaan loolu tax ñun correct Euh, ñu àddu ci mbir moomu te ñu sàkku euh, ñu mën cee waxtaan ñun ñu euh, mbokk ñun ñun ñi nga xamante ñoo bokk liggéey boobu. jamono ji ñu nekk nii muy waajal élection ak it tension yu bëri ci wàllum politique dañuy gën di faral manipulation ci liggéeyu presse maanaam dañ leen des fois manipulation bi day ëpp ci réseaux sociaux yi ba mu andi amalgame ci traitement de l'information bi tey ji ban appel nga ciy def. waaw xam nga euh, liggéey journaliste nag dafa am ci lu mu lalu te dafa am yoon boo xamante ne ci la war a tegu hmm. euh, kon man li ma jàpp mooy ñun journaliste yi bu ñu toppee yoon woowu ah suñu liggéey dina yomb euh, ak ak jafe-jafe yi ñuy jànkonteel yépp nga xamante ne waaw yenn jafe-jafe yi sax ci liggéey bi ci boppam la bokk waaye nañu fexe ba saa su ne euh, suñu liggéey ñu daal di ko tënk rek ci li nga xamante ne mooy euh, charte yi nga xamante ni ci la liggéey bi lalu loolu buñ ko defee rek euh, maanaam mbir yi gën a yomb du ma ne du am ay jafe-jafe waaye waaye it dina defe naa daal. Euh, dina dina yomb. Euh, wax ci tamit euh, ndax yéen yéen a ngi ciy taxaw di sensibiliser journalistes yi di leen ci amal ay formation ngir ñuy mën a maytandiku lool di fausses informations yi. waaw waaw loolu loolu loolu ci taxawaay correct la bokk euh, looloo tax sax ñu indiwaat euh, li ñuy wooye cas d'école muy euh, ay ndaje bu ñuy organiser ñaari weer yu jot ñu jël benn mbir moo xamante ne ci liggéey bi la jëm ñu ci waxtaan ñu xool naka la ñuy def liggéey bi mu gën a dox ñu xool ñu waxtaan ci li nga xamante ne lii la ñu war a def lii de war ñu ko def ci liggéey bi euh, ñu ci waxtaan ñun ñëpp ndax euh, dañoo jàpp ni euh, tey problème yi nekk ci média yi CORED rek munu ko régler CNRA kese mënu ko régler il faut ñun journalistes yi ñun ci suñu bopp ñu dugg. Euh, ñu mën koo régler euh, te mooy li ma li may faral di wax euh, problème yu bëree bëree bëri ñu jooytu ci wàllu média ci wàllu liggéey journaliste seen solution seen saafara mu ngi ci biir rédaction yi bu ñu defee li war ci biir rédaction ñun journaliste yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu jiite maanaam suñuy responsable éditoriaux mooy ay rédacteur en chef wala directeur de publication bu ku nekk defee sa liggéey nu mu waree jàpp naa ni ay jafe-jafe yu bëri mën nañ ko saafara. ci problème yooyu la sax dañuy gis ne euh, da ngay gis léeg benn émission waxtaan yoo xam ne euh, dañ ciy jàllale ay menaces de mort ay appel à des haines et tout euh, tamit noo ko jàngat. waaw jàngat bi ci def rek bi ma ciy def rek mooy li muy wone mooy que ci mbir mi dafa am ñoo xamante ne du ñu def seen liggéey ni mu ko waree ndax euh, euh, ku nekk ci rédaction xam nga ni rédaction bu nekk dafa am organisation dafa am kuy ku nekk ak liggéey bu ñu la euh, bu ñu la cëral euh, donc bu ñu demee ba yooyu di ñu koy diffuser bu fekkee dañ ko diffuser ci télé wala ci rajo dafa am kenn ku décider ne lii dañ ko war a diffuser moom moo jël responsabilité di ko diffuser donc bu fekkee ni euh, émission bu ñu enregistré laata ñu koy diffuser du émission en direct waaye buñ ko diffuser mu am ci ay saaga mu am ci ay menace de mort euh, euh, euh, loolu day fekk dafa am nit boo xamante ne dëgg na loolu waaye dafa ne amul kii dañ koy diffuser mhm. donc jàpp naa ni mooy li ma wax sànq rek bu fekkee ci biir rédaction yi ñu ngi def liggéey bi nu mu waree mhm. Euh, xëj na problème yu bëri dina dina wàññeeku maanaam euh, bu ñu defee benn émission bu ñu ko enregistré ba pare balaa ñu koy diffuser euh, ñu déglu bu baax ñu xool xam ndax amul ci loo xamante ne bu ñu ko diffuser dina taal réew mi bu ko diffuser dina am koo xamante ne tooñ nañ ko te deful dara loolu yëpp dafa bokk ci liggéey journaliste te loolu dañ ko war a def mais seetlu naa ni yenn saa yi ñu bëri duñ ko def. monsieur Badji jeexaleeg euh, li nga xam ne mooy code de la presse boobaak léegi ñoo ngi dégg ne moo ngi ci circuit bi euh, tey nga jàpp ne lan moo waral ñu matérialiser ko. ah waaw code de la presse bi euh, fu toll nii ku nekk war ngaa jàpp ni fu toll nii ci code de la presse bu bees bi mu mooy dox Sénégal. li ko firndeel mooy journaliste yi ñu ci bëri ñu ngi dem. di déposer pour mën a am carte de presse loolu code de la presse moo ko moo ko moo ko moo ko organisé. ñoo ngi déposé euh, mais entré en vigueur. ah dina entrer en vigueur ndax boo dem boo nee kay ñu ngi déposé kay boo déposé ba ñu woo la nga ñu ne la kay jël sa carte loolu kay mooy entrer na en vigueur du ñu la jox carte boo xamante ni du am njëriñ donc euh, jàpp naa ni code de la presse xëy na peut-être dafa am ay poñ yoo xamante ne euh, ba tey dox ndax dafa am lu mu war a àndal. waaye lu ci ëpp lu ci ëpp moom mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi dox euh, mooy mooy firnde bi ma joxe sànq mooy carte de la presse. Mhm. Euh, bokk na ci kon code de la presse léegi moom moom moom mu ngi mu ngi mu ngi ci ci yoon te mu mu ngi dox. Mhm, ñu lay jaajëfal bu baax a baax euh, Samba Djalimpa Samb nga yor communication correcte. jërëjëf.